jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am cafarte daal di ànd ak seen télévision bu mag bi di Kabir TV saa su nekk rek ni ñu koy defee nuyu neen leen fu waay nekk fu waay mën a toog neen leen jëbb loxo di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu saa su nekk rek di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne dañooy xerewlu di bàyyi xel bu baax a baax seen seen télévision bi di Kabir TV rawat na seen émission bu mag bi di Kabir matinal ñëwaat neen bu baax a baax di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte ak contentement di ñaanal yàlla ñuy tawat ne si kër yi ne si hôpitaux yi yàlla yàlla fëgg seen bopp yëkkati leen bu fa yëkkati yeegul lu saa su nekk di deew fa nga xam ne mosin de récorrection comme ni nga koy mbaam gàtt na waaye si jur gi la di ñaan yàlla yàlla génne leen fa salaam ba bu ñu fa delluwaat waaye tamit ñi nga xamante nii ñoo xamante ni ba léegi euh, ump na leen yàlla na ump bu baax a baax waaye tamit di ñaanal suñu xalif généraux yi yàlla na dëgëral leen yàlla kàttanal leen yàlla may leen wër ak gudd fan waaye tamit yéen bi nga xamante moom la yàlla yéen yàlla nekk yéen gu oyof lool te ànd kook wër ak gudd fan bu saawan baawaan mbokk yi nuyu ñëpp ziar na ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi si kaw tali bi di daw yal na yàlla musal la si euh, li nga xam ne moo di ak li xam ne moo di jàmm tali yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def ñu ne si marché yi di jaay di yëngatu lu waaye di jaar yàlla na ko yàlla barkeel bu baax a baax mbokk yi saa su nekk rek noonu lañ koy defee fii si Kabir TV jaajëfal ñëpp waaye rawatina nag lépp loo xamante ni wàllub information la nga xam international dañ koy daal di ah, farañ fàccee waaye tamit li xam mu di politique nga xamante ni fu nii langu politique bi daal di nay wulee ñaay bu baax a baax ndax nag fu mu toll nii mu neen ne amatul jàppal ma sa malaan lépp looy daal di càmbar rek di nga si boole nga xam moo di diwaanu politique waaye tamit sport dinañ ko daal di farañ fàcce bu baax a baax dinañ daal di dugg nag si nga moo di club yeeg lépp loo xamante rek xibaaru tàggat yaram la dinañ ko daal di joxe people loolu yëpp dañ koy daal di farañ fàcce bu baax a baax fii nga xamante moom moo di Kabir TV rawat na saa su nekk rek émission bi ñu koy daal di amal di Kabir cabine matinale cabine matinale nag eh, li ñu koy daal di waxee rek eh, toutes les informations à chaud eh, fii la mburu mi di xoyam xoyamee ñu koy daal di càmbar bu baax a baax à travers. Mavoie ñu koy daal di amal bu baax a baax mbokk yi comme noonu lañ koy daal di defee rek dañuy daal di tàmbalee fi ñu koy daal di tàmbalee si ndorteel ga daal di ñëw nag fi nga xam ne moom moo di l'observateur Euh, l'observateur nag euh, li ñuy daal di xam rek moom moo di tey euh, parti bi nga xam moo di PDS di parti démocratique sénégalaise nga xamante ni si xët mu njëkk rek daal dina fay def rek ne moom moo di dernière carte maanaam daal seen carte gu mujj gi daal fu mu toll nii moom moo nekk nii sa maanaam sànni tàccu daal si la parti boobu di PDS di parti démocratique sénégalaise si moom la ñu daal di nekk waaye tamit kii nga xamante moom moo di Anta Babacar moom nga xamante ni lépp lu mu wax daal si mu njëkk bi na may benn li nga xam ne benn ton parlementaire Euh, supplémentaire bi nga xamante ni daal euh, jëm ki nga moo di président de la république Macky Sall moom nag pare na ki nga xam ne moo di Anta Babacar Ngom moom nag fu mu toll moom rek moo des si langue politique bi euh, comme jigéen si candidat yi nar a jëm nag si moo di ndaw pencum réew ma waaye nag nga xamante moom moo di li wax rek si xat mu njëkk fa daal di tege waaye yi yi nga xamante ni daal moom la maître Aïssata Tall démb mi amal nag li nga xam ne moom moo di euh, conférence de presse am boobu fële nga xam ne moom moo di kin fat place euh, daal dina fay xamle nag li nga xam ne moo détenu politique yi ñuy bàyyi faral di yi bàyyi nëgën nëkkum la ndax nag eh, mun la saytoo xool la ba nga xamante ni daal eh, war na laa mën a bàyyi dina la bàyyi nga dem toog sa kër loolu rek moo si am waaye du lenn loo xamante ni eh, lu ñu mën a daal di nasaxal la waaye ba tamit ba tey daal di nay aju na si moo di dikk si nga moo di Sonko Jomaay moom ba tey l'observateur daal na si àddu wax si aussi pàcc bu yaatoo yaatu bu ñu jógee si l'observateur dañuy daal di daal nag fi di l'enquête l'enquête nag lépp lu mu daal di xam rek si mu njëkk moom tamit daal di nay ñëw si li nga xamante moom moo di dans le troublon di PDS maanaam parti démocratique sénégalaise bi lépp loo xamante ni daal ay euh, troublon la lépp loo xamante daal ñoom ay li nga xam ay ndëgg sarax la loolu yëpp daal ñu ngi koy daal di amal si xët bu njëkk nga xam moom moo di euh, l'enquête waaye ki nga xam ne moom moo di Jigra nga xamante moom moo di euh, Sané moom nag daal di nay. dañ ko tuumalal li nga xamante moom moo di ab càcc moo tax nag ñu daal di koy jàpp uh, wuli ko wuli Birame Ndiémé daal di koy dóor a dóor moom daal di mujjee ñàkk bakkanam uh, fameem nag ñu ngi daal di uh, xam ne rek ki nga xamante moom moo di Euh, moom mu ñuy daal di faat moom moo nekkoon nag euh, soutien famille bi maanaam daal moo leen doon dimbale si yenn yu bëree bëri moom mi nga xamante ni moom leen daal di faat dañ ko tuumaloon nag li nga xam ne moom moo di wàllu càcc waaye loolu tamit ba léegi rek euh, ba léegi ñu daal di dem fi nga xam moom moo di le quotidien le quotidien rek li ñu daal di xam ne moom moo di ba tey àdduna si li nga xam ne moo di libération détenu politique yi Aïssata Tall Sall daal di na si moom tamit addu si xët mu njëkk bi lu yaatoo yaatu ba nga xamante nii moom tamit daal dina si ñëw waaye nag eh, ki xam moo di eh, eh, fële Dakar Ziguinchor bateau bi nga xamante nii moom lañ dippee Aline Sitoé Aline Sitoé moom tamit dina daal di tàmbale nag daw si li nga xam ne moom moo di mbeex mi maanaam si biir géej gi dinañ ko daal di tàmbale muy dakaar nga moom moo di Ziguinchor moom ki nga mooy bateau bii di Aline Sitoé dinañ ko daal di tàmbale waaye ba tey rek ki nga xam moo di Euh, grève bi nga xamante nii euh, moom mooy euh, ñun aju si mbalit bi daal di si aju defoon li nga xam moo di grève si mbalit bi rek daal di bànkoon seen loxo ne duñu fas yéene suqarteek li nga xam ne moom moo di mbalit meeg yooyu daal di def ab grève léegi nag grève ba dinañ ko daal di maanaam dinañ ko daal di maanaam tàmbaliwaat maanaam daal dinañ bàyyi grève bi delluwaat si nga xam moo di liggéey ba loolu yëpp moo di le quotidien moo ñu ko daal di ah, xamle waaye tamit eh, bu ñu demee fi nga xam ne moom moo di le soleil le soleil rek si lim ñu rek moom moo di ñi nga xamante ne nii ñoom ñoon mooy détenu politique yi ñu ñu jot a bàyyi toll nañ si 344 eh, li nga xam moo di détenu libéré waaye nag ba tey eh, deseni deseni ne si kaso bi li nga xamante moom moo di 272 ñoo xamante ni daal ñi ngi si kaso gi di xaaral ni ñoom tamit ñu daal di leen di libéré fi nga xamante ni moom mooy si wàllu kaso bi gannaaw bi ñu libéré 344 euh, détenus libéré leen waaye am na ñeneen ñoo xamante ni euh, yoo xamante ñi ngi en attente maanaam daal di xaarandi ndëggandikum ñu mun leen daal di ñoom tamit bàyyi bu ñu jógee foofu dinañ ñëw si leen loolu nag euh, page 11 bu euh, Le Soleil moom moo ñu ko daal di xamle bu ñu jógee si Le Soleil day ñëw si Libération Libération nag moom tamit daal di ñëw nekk si nouvelle date des élections li nga xamante ni moom moo di mu ngi ko duppee rek euh, euh, c'est toujours inconnu maanaam daal euh, dat bi nga xamante ni moom mooy datu élection présidentielle yi maanaam France ni xëddéem kenn daal xamagul ko euh, date bi kañ lay euh, doon moom daal moom la samp nag li nga xam moo di libération ci xët mu njëkk bi rek daal di dem nag fa waaye nag ñi nga xam ne moom moo di waa conseil constitutionnel euh, daal di ne nag euh, teg bët ki nga xamante ne nii maanaam daal bàyyi xel euh, ki nga xam moo di Rose Wade maanaam génnam gi mu génn si candidat yi moom nag waa constitution waa conseil constitution ñu ngi koy daal di bàyyi xel bu baax a baax gannaaw nag bi nga xamante ni ñu ngi tegoon si bopp ndoddam gi li nga xamante ni moom moo di daal ab double nationalité waaye moom daal dafa génnaat bu baax a baax ne daal bokkatul li nga xam moo di si candidat yi daal di retiré bu baax waaye nag ñii di waa constitutionnel daal di neen koy ba léegi maanaam tëg bët bi nga xamante nii mooy euh, génnam googu noonu waaye ba tey rek euh, ñi nga xamante moom moo di euh, fële nga xamante moom moo di candidat yi nga xamante nii ñoo desandi si mbir mi toll si fukk ak juróom-ñeent ñoo war a jëm sa pëncëb ndaw réema ñoom nag am na si nga xam moo di benn soxna muy an ki nga xam Ngom moom rek moo sa nekk ab soxna ba tey bu fa jógee dañuy jëm si xam moo la tribune la tribune nag lu ñuy daal di xam rek moom moo di maître Doudou Wade moom nag lim daal di xam rek euh, nee na ki nga xamante ni moom moo di bu ñu dépassé le 2 avril 2024 ngir nag euh, defoon élection ki nga xamante moom moo di euh, président de la république di Macky Sall moom nag dafay daal di recevoir si li nga xam moo di li xam moo di bi loolu nag article bi nga xamante moom moo ko daal di moo ko may rek muy article article constitution bi moo ko di mbiram waaye ba tey rek ki nga xam moo di Aly nguy Ndiaye daal di nay moom tamit addu rek li nga xam moo di ngir ñu mën a dajaloo waxtaan ngir nag li nga xam ne moom moo di rek jàmmub Sénégal moom daal ab euh, woote lay woo ngir nag ñu daal di dajaloo waxtaan ngir euh, Sénégal am euh, jàmm. moom Aly Ngouille Ndiaye loolu lay daal di euh, woote rek muy rassemblement boo xamante ni rassemblement de paix lañ ko tuddee waaye ba tey Walf Quotidien lu ñu daal di dikk rek dikk na si li nga xamante ni moom moo di 19 euh, candidats yi nga xamante ne ni daal ñoo war a jëm fële sa présidentielle 2024 bi mu nekk nag élection yi 19 candidats yooyu noonu daal euh, ñu ngi def si wet ba Diomaye d'abord Euh, les autres après loolu nag euh, lekk ki nga xam ne moom moo di euh, ki nga xam moom moo di Walf Quotidien moom moo ñu ko daal di xamle si xet mu njëkk bi mu nekk nag loo xamante ni daal langu politique bi daal di nay wulee njaay ndax kenn ku nekk yaa ngay xool li nga xamante ni moom mooy sa intérêt de waaye li nga xamante moom moo di intérêt personnel yi ñëpp ñu ngi say daal di addu ndax Sénégal yëpp ñu ngi wala adduna bi yëpp ñu ngi daal di sàkku daal ngir jàmm am fii nga xam ne moom moo di réew Sénégal bu ñu daal di jóge foofu dañuy dem fa nga xam ne moo di international international nag euh, fi nga xam ne moo di euh, Burkina Faso Burkina Faso nag euh, ñoom rek li ñuy xam rek moom moo di mouvement bi nga xamante ni société civile bi moom moo ko daal di am ak bi ñoom nag am na benn membre actif boo xamante ni daal dafa daal di dafa daal di déclaré li nga xam moo di si 20 bi ab li xamante daal moom moo di actif ni daal ñu ko xamle moom moo di info risque moo ñu xamle loolu waaye ba tey rek li nga xam moo di ay arrestation yu bëri yoo xamante ne nii daal euh, nemmeeku nañ ko daal si li nga xamante moom moo di euh, si euh, pays boobu nga xamante moom moo di Burkina Faso ñu jëm fa la sa RDC Congo France daal dinay def nag benn appel ngir nag ñi nga xamante moom mooy daal di nag mën a jàppale eh, ngir nag ñi nga xam ne mooy M23 eh, M23 ñoom nag ngir ñu mën a daal di jóge si territoire yi nga xam moo di RDC Congo loolu nag li nga xam ne ministre bu France bi eh, di nga xam ne mooy des affaires étrangères daal di nay appelé nag ci lundi bi 20 février 2024 ngir nag ñu daal di daal jóge si li xam moom moo di mm, def benn jàppale ngir nag waa M23 daal di jóge nag si retiré bu baax a baax jóge si territoire ki nga moo di euh, congolais yi waaye tamit euh, def benn recrutement boo xam ne daal situation bi nag situation euh, nga xam moom moo di l' état ki am de Congo moom nag li muy xam rek pour rek ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy waa M23 daal di mën a joge si territoire foofu yëpp loolu nag communique bi nga xam ne moom moo daal di daw ki ñu ko xam ne moom moo di risque moom moo ñu xam le moo di li nga moom mooy communiqué boobu waaye tamit bu daal di moo di l'intégrer euh, territorial de la RDC Congo ñoom nag citoyens yi maanaam citoyens de la euh, popula population bi ñu ngi nag population civile bi ñu ngi daal sàkku ñi nga xamante ne daal ñoom ñooy waa euh, combat bi nga xamante ne moom mooy combat ki moom mooy combat bi pour nag ñu mun a dal di tegandi li nga xam ne moom moo di euh, mbir mi si suuf ngir ñu mun a daal di jël jële fi ñi nga xamante ñoo ñoo di waa RDC Congo ngir ñu mun a daal di génn nag territoire RDC Congo bi ñoom waa m ngir ñu jóge fa nen daal cessé maanaam bàyyi xeex bi complètement daal di delluwaat loolu yëpp nag ke moom moo di euh, waa France mu ngi si dox euh, tànk euh, jàmm ba tey rek dañuy dem fa nga xam moo di Afrique di sidd ñett fanweer li nga xam ne moom moo di si weeru mars mai bi nga xamante lañ jëm loolu nag élection générale yi moom leen daal di dëgmal euh, fi nga xamante ni daal moom moo di fële sa Afrique di Sud li nga xam ne moom moo di yu bëri gannaaw bi nga xamante ne daal amoon na ay ay ndëgandëkk yoo xamante ni euh, parti li nga xam ne di positif bi moom dal fële sa présidence ba daal di nay annoncé nag li nga xamante ni daal moom moo di mercredi euh, bi ñu jëm bi nga xam 29 mai leen daal di nag euh, jàppandi li nga xamante moom moo di euh, li nga xamante mooy euh, pré élection présidentielle yi loolu nag daal dinañ koy enregistré maanaam officialisé nañ ko waaye nag dinañ sa toptal li nga xamante moom moo di maanaam 400 députés yoo xamante daal dañu leen di daal di voter ñoom tamit fële sa assemblée nationale ba ñu mun a nag ànd ak le président de la république ngir nag mun a def li nga xam ne moom moo di liggéey bu mucc ayib ayib waaye tamit ki bi daal di nay daal fàttaliwaat li nga xam moo di sampaat ndëndam ngir nag euh, dernier mandat am waaye nag ñi nga xam ne daal ñoom ñooy waa parti bi ñoom tamit nee nañ Frasque dem loolu daal ñi ngi koy ruumandaat ba tey rek ñu daal di wéyal nag si euh, langup euh, nga xam moo di sport sport bi nag. li nga xamante moom moo di mondial euh, li nga mondial nga xam basketteur bi moom nag daal di nay vingt deux mille vingt quatre bi li xam moom moo di Lions yi ñoom tamit daal gannaaw bu ñu janook ñi nga moom moo di waa euh, Japon waa Japon nag dañ leen mujj éliminer si euh, juróom si quatre mu nekk loo xamante nekk gannaaw ñoom bu ñu daal di defee nag li nga xam moo di mëne li nga xamante moom moo di seen rencontre yëpp dañ ko daal di mëne. daal di koy gagné waaye nag bi ñu daal di euh, jongante ak nga xam moo di euh, Japon rek euh, Japon dafa leen mujj daan nag si li nga xam ne moom moo di juróom-benn bal si ñeent bal mu nekk nag score boo xamante nii si groupe li nga xamante ni groupe bi la bokk phase groupe bi la daal di bokk ki ñu ko daal di xamle mooy wii sport score basketteur bi nag moom ki nga xamante moom moo di Raoul Mendy Raoul Mendy nag li mu daal di xam rek nee na ki nga xam moo di groupe bi li nga xam mooy group bi ñu daal di yi daal di bokkoon ndax ñu daal di say génn génn goo xamante ni mel na daal équipe bii di équipe euh, Sénégal bi ñu daal di koy euh, éliminer si premier tour yi loolu daal euh, vraiment ak équipe bi fu mu toll ak turu Sénégal nga xamante ne nii waroon nañ mun a def lépp loo xamante ni ba mun a bañ a génn si li nga xam ne moom moo di premier tour bi moom nag mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax gannaaw bu ñu defee li nga xam ne moo di élimination yi di Sénégal phase du groupe bi moom ki nga xamante ne moom moo di Mendy moom nag um, li muy xam ne rek moom moo di uh, équipe mel ni Sénégal waroon naa mën a bañ a génne si premier tour yi waaye nag dañ ko daal di génne si premier tour yi muy loo xamante ni daal lu ñuy moom daal lu muy ñaawlu la si loo xamante ni moom mooy équipe bi nga xamante ni toll na ni équipe Sénégal loolu daal moom la ki nga xam moo di euh, seen euh, attaquant boobu di euh, rawul Mendy ba tey ñu daal di wéyal li nga xam ne moom moo di éliminatoire yi nga xam mooy premier tour gannaaw mondial basketteur bi nga xamante ni l' équipe nationale du Sénégal daal di neen koy nag génnee mu nekk nag coup bu ngand boo xamante ni daal maanaam xaare wuñ ko woon si équipe nationale di Sénégal bi ba xam ndax ni ko génnee woon waaye ni ñu ko daal di éliminé daal dafa daal di bett ñëpp. poste nga xam ne moo di phase groupe premier tour bi nga xamante ni moom lañ daal di nekkoon loolu nag ñi ngi koy daal di ñawlu bu baax a baax waaye ba tey nag daal na si addu li nga xamante ni moom moo di nee na vraiment euh, déçu euh, li nga xam ne moom moo ay résultats yoo xamante ni daal dañu ko dot mire ba pare daal di koy euh, l'argentil enregistré ko yoo xamante ni fi nga xam ne moom moo di dernière carton yi li nga xam ne moom moo di côte bi da nga moom moo daal di seqool li nga xam ne moom ni mbir mi daal di neen daal def li nga xamante ne moom moo di euh, wàccee nag maanaam daan équipe bi si premier tour bi gannaaw ñu ngi ko doon séentu nag euh, ba mu sore sori wala sax mu dem ba dekk si nga xam moo di euh, finalu wala boo indi sax ndam li fii waaye nag fi nga xamante ni daal moom moo di premier tour yi lañ ko daal di génnee mu nekk nag loo xamante ni daal ñoom ñëpp ñu ngi koy daal di ñaawlu ñaawlu goo xamante ni ñaawlu gu mucc ayib la waaye ba tey rek si li nga xam ne moo di euh, langub euh, politique bi ñu daal di nemmeeku rek euh, sept sages yi nga xamante ni daal ñoom ñoo daal di nag dajale woon si mardi bi def nag retiré li nga xam ne moom moo di candidature ki nga xam ne moo moom nag di nañ retiré candidature am gannaaw bu mu waxee ne rek ne moom du daal day daal di génn nag si li nga xam moom di candidat yooyu moo tax nag set sages yi daal di dajaloo def li nga xam ne moom di retiré retiré ko si bi nga xam moo di groupe boobu waaye li nga xam ne moom moo di ay précision yoo xam jël na ko bu baax baax moom moomu daal di nay xamle nga xam ne moom moo tax mu daal di euh, beddeeku foofu si nga moo di euh, langue politique ba dafa ni si bëri ñu ngi koy jàppee honneur ak li nga xam ne moo di dignité waaye nag ñu si bëri daal ñu ngi lam-lame lan moo tax mu daal di euh, teggi li nga xam ne moo di xaj wàllam si kuje googu noonu ba tey rek mu nekk loo xamante ni ñëpp candidat yi nga xamante daal ñoom ñoo dem euh, fële mille élection 2024 bi nekk nag euh, motif boo xamante ni daal ñu ngi koy euh, motif bu extraordinaire ak si mel ni Babacar Camara Boubacar kamara ak ki nga xam moo di Cheikh Tidiane Dieye eh, Déthié Fall Daouda Ndiaye ak nga xam Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom ak nga xam moo di Amadou Ba Idrissa Seck eh, Aliou Amadou ak nga xamante moom di Serigne Mboup eh, Pape Djibril Fall ak nga xam ne di Mamadou Lamine Diallo ki nga xam ne moom moo di Mouhamadou Boun Abdoulaye Ndione ak ki nga xam moom moo di rek euh, ak nga moom moo di euh, euh, Aly Ngouille Ndiaye rawatina ki nga xam moom moo di Malick gàkku waaye tamit El Hadji Mamadou Diawo Bassirou Diomaye Faye ki nga xam moom moo di Thierno Alassane sàll ñii daal ñoom ñooy nag wéyal li nga xamante ni moom moo di nekk candidat yi war a jëm fële nga xamante moom moo di li nga xam moom moo di présidentielle 2024 maanaam ñi war a tànneef tànneef réew mi nga xamante ni ñoom daal ñoo war a nekk candidat yi gannaaw nag si candidat yooyu ki nga xam moo di Anta Babacar Ngom moom rek moo si eh, jigéen gannaaw bi nga xamante ni Rose Wade dafa daal di eh, tekki nag li nga xamante ne moom moo di démissionné bu baax a baax si eh, candidat yooyu waaye nag libération daal di ñëw nag si li nga xam moo di prison au Sénégal daal di def nag ay dossiers yoo xamante dossiers yu bëree bëri yoo xamante ni bàyyi ay bàyyi ndëgënde ko yoo xamante ni ñu si bëri ay détenus politique waaye nag euh, waxaat rek ñi nga xamante ni ñoo nekk si bopp ba am na si ñu bëri ñoo xamante ni euh, deseni nen si li nga xamante moom moo di mbir moomu noonu di xaarandi ngir nag ñu daal di leen di libéré ñoom tamit fa nga xamante ni moom moo di si prison yi waaye ba tey détenus politique yooyu ñu si bëri bañ génnee rek ñu ngi def ay déclaration euh, di xam ne rek li nga xamante ni moom moo tax rek bañ leen leen jàppee amul lenn loo xamante ni wax na a euh, dal la wala ab tiis boo xamante a la ndax euh, da leen fe ñii leen fekk jàpp leen ñii nga xamante ni da fekk seen mbedd yi nii seen place su liggéeykaay di leen nag yóbbu fa la nga xam ne moo di ndungi siin fa mbax na doone benn ñu si bëri nag gannaaw comme ni ko ñu si bëri waxee rek euh, dañ leen jàppoon waaye noonu leen jàppe woon noonu leen a bàyyiwaat mu nekk nag waaye bañ leen bàyyi rek ñi si am ay ruuma daal ñu si bëri génn di def ay sortie ne eh, ay langoop li nga xamante moom moo di ay complot la ñoom seen ku si mel ni Khalifa Ababacar Sall moom tamit def na benn eh, sortie génn nag di wax rek nañu gouvernement bi xamle eh, lan moo tax mu jël ak li nga xam moo di Euh, détenu politique yooyu daal di leen di génnee nag tey waxul lenn loo xamante ni lu concret la loo xamante ni lu mun a euh, teg si xelu nit ñi lu dal la ngeen ñu mën ko xam waaye nag dafa mel ni complot politique boo dox si diggante euh, ki nga xam ne moom moo di Sonko ak ki moo di Macky Sall di président de la République waaye nag loolu yëpp ab romandaat la rek bu ñuy daal di romandaat mun nees ne fu mu toll nii président de la République moom mooy sàkku rek li nga xam ne mooy ab waxtaan ak Sonko waaye ñu si bëri ñi nga xam ne ni Sonko sàkku yàquwul waxtaan googu noonu waaye li si mun taam rek eh, loolu yëpp ak laaj la ñi si bëri ñu ngi samp ab laaj eh, lan moo tax daal ñuy eh, fas yéene génnee li nga xam ne moo di détenu politique yi boobu ba léegi te mënoon nañ ko def ndiki bu yàgg mbokk yi li moo nekkoon seen émission Kabir matinal ñu leen ko doon farañ fàcceel fii si Kabir TV saa su nekk rek ñu leen koy ànd ak yéen rawatina langue politique bi waaye tamit international ngeen Burkina Faso ki nga moom moo di waa mv ñu fa daal di wëree rek territoire ba waaye fële nga xamante moom moo di Afrique du Sud ñoom tamit dinañ amal seen élection gannaaw ñetti weer maanaam si weeru mai bi lañ ko daal di fësal euh, le 29 mai lañ ko daal di fas yéene def waaye tamit gis ngeen li nga xam ne moom moo di sport euh, biscoseur bi ñoom tamit daal dinañ si euh, dugg bu baax a baax a baax daal di farañ fàcce ñoom tamit gis ngeen dañ leen daal di éliminé nag si premier tour yi waaye nag seen rencontre yi mujj yëpp yu njëkk yëpp dañ ko mujj gagné waaye bu ñu dajee daal ak moom di Japon Japon daf leen mujj éliminé si euh, premier tour yi maanaam premier groupe bi daal di leen éliminé ñu dellusiwaat fii si Sénégal loolu nag dégg ngeen seen attaquant boobu di Raoul Mendy lim si wax yëpp nee na daal équipe bu toll ni équipe Sénégal mënoon naa daal gën a mun a euh, maanaam perversé gën a mun a dem sa kanam moo daal ñu koy éliminé fii nga xamante daal muy euh, groupe bi euh, ba tey mbokk loolu yëpp nag ñu leen ko doon faram-fàccee fii si Kabir TV rawat na Kabir matinal ñu jaajëfal ñëpp di am mbégte ak kontaan moom baax a baax saa su nekk rek di leen koy euh, faram-fàcceel yi ñu leen jox dig dajeeb ko suba ak jàmm incha allah di jaajëfal suñu woo caméraman jërë ngeen jëf